alaaj baay baay jili baay faal alaaji baay jili ñu bëggoon tey ñu ñëw seet si leen tey pour waxtaan ak yéen si wàllu opération bi nga xamante ne yéen a ngi koy def ñu buggoon de nga wax ñu tuuti rek naka la opération bi mel. waaw gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sant Serigne Touba bu baax di sant suñu wasila Serigne Abdou Khoudoss Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi waaw di wax ni nag ñun moom yàgg nañ fi duñu fi ay gan depuis ba dara bi nekkee Padois ba tey ñu ngi di nekk di yëngu si wàllum xar yi ba yàlla dogal dara bi ñëw fii nii waaye opération bi moom niñ koy dundee nii moom wax dëgg yàlla xaw na am tuuti métti métti. la may parce que boo xoolee berte bii nii fi mu nekk nii ñun fii lañ nekkoon di fi liggéey mu nekk suuf te xam nga xaru yar moom suuf moo ko arrangé mais xam nga dëri moom arrangé wu ko. tey ji ni gars yu bëri loolu moo nekk seen problème dañu mujj obligé ut ay suuf di ko sëkk ba pare fii ndox bi mënu fi ñëw xam dañu daan indil ay ay branchel ñu ay tuyau mu ñëw am ay robine mais parking bi nii du ko mën a nekk te oto ndox yi tamit bu ñëwee benn yoon lay ñëw te du agsi parce que bu tàmbalee feenee dugg seenee balaa mu agsi fii day fekk lépp jeex fu mu ne nii waa dara bi yëpp seen problème mooy loolu ndox bi mooy seen problème kon affaire bi commencé na métti dal. ñi ngi ñaan daal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu wi ministre l'élevage bi bu ñu mënee jàppale surtout si loolu tamit dinañ ci kontaan trop ndax tey ni yor ay xar yor ay téeméeri xar ak lu top ba pare chaque jour nga jënd ndox plus de ay 4000 5000 6000 ba pare nga bëgg jënd xont bëgg gaay bëgg añ bëgg reer bëgg ndekki ba pare ñu ni xar dafa cher quoi kon ya- mais kon est ce que ñu ngi jar xarit ñi ngi dem moom mais ndank ndank rek wax dëgg yàlla moom dara bi moom boo xoolee ni mu tëddee nii nga xam ne yëngoogul quoi client yi génnaguñu am nañ yaakaar nag dinañ génn am nañ yaakaar dinañ génn waaw mais fu mu ne nii moom wax dëgg yàlla dañuy dundal di dund nii rek mais wax dëgg yàlla amaguñu luñ gën a daal. cher na. ah kari mom moom mën naa ni seerul ndax xaru yar moom xar moom mënoo ko yeew ren ba dëwan jaayee ko am ci li nga bëgg xanaa xaalis bu dajaloo bi rek ak amour buñ ci am bi ñun moo tax def ndax chaque jour 500 francs rek boo koy denc at bi ba at bi dellu si rek 180000 la bu fekkee li ngay jaay nga jëndee ko 70000 wala 60000 kon mënoo ci génn kon yaakaar naa ni ñun moom mënuñu see génn daal mais amour bi rek moo ñu si bàyyi. kon ku fi ñëw fi di nga am xar. waaw ku fi ñëw moom di nga am xar. xa yi fu ñu toll. prix yi moom am na 80000 jëm ba 1 million nangam sans départ rek. client yi moom leen moo nekk seen problème parce que da nga gis koo xamante ni 100000 la yor ba pare bëgg xaru daas 200000 ba pare di wax xari dafa cher kon loolu du cher quoi mais ku nekk bu la wanee loo xamante ni yanu na maanaa yow di nga xam tey jii nii su mu la wanee tey jii nii xar bii nii ma laaj la si 200000 boo xoolee di nga xam ni xar bi jar na 200000 wala jaru ko mais xar bii nii boo ma ci fay ay 75000 50000 xam nga du ma la ko jaay kon ku si nekk li nga yor olof dafa ni ku nekk li nga yor moom nga duggee marché boo bañee sonn ñu si bare nag dañuy ñëw wër ba sonn dem tamit ne ah xar yi ñu ngi fa xar yi dañuy lamb fekk ni man mii am na yoo yu bari yoo xam jaay naa ko mais boromam dañ ko fi bàyyi léegi nag ñoom dañuy bàyyi ba la suba la jour si ñu ñëw jël si seen xar kon ñu prêter attention bu baax tamit képp koo xamante ne tamit mën nga ko xaalis bi mi ngi ci yow boo mënee teel a jënd tamit nga teel a jënd ndax loolu bii gañ bi perte la rek. xam ngeen gisee seen nekkin fii ci stade waaw nekkin bi moom bu dee ñun suñu biir moom ñun suñu biir moom ñun éleveurs yi ñun suñu biir amuñu benn problème ñun suñu biir ndax tey jii nii man mën naa am client client bi ñëw gisu fi lu mu bëgg dama koy yóbbu ci gétt bii nii ñaanduur su ma ko yóbboo mën na fa am lu mu bëgg wala ma boole ko ak say naalin mu jaay ko lu mu bëgg kon ñun amuñu problème suñu biir ñun problème bu ñu am bi mooy problème mu ndox surtout moom lañu am moom lañu am parce que ndox dañu ko yittewoo dañu ko yittewoo te oto ndox bi mënoo koy xaar chaque jour bu ñëwee benn yoon lay ñëw du ñëwaat te du agsi bu bu demee fenn rek affaire bi fay jeex kon bu ñu mënee dimbali si ndox dal problème bobu no mom amna fi sa kaddu gu waaw sama kaddu bu mujj bi nak damay gëreum damay gëreum bu baax tamit Aminata Mbengue Ndiaye. waaw ndax mom bam ko yoree macha allah amuñu won ben problème waaw diko ñaanal tamit guddu fan ak wër waaw ñu koy gëreum bu baax ñun éleveur yi di gëreum tamit Samba ben Ka waaw ndax yàggu fi tamit mais tamit daan nañ ñëw di xool di toppatoo lu ñu manqué mu defal ñu ko. suñu ministre bu bees bi nag day dóor a ñëw tam ñu ngi koy ñaanal tamit mu am bonne réussite si lu muy def. waaw mais ñu ngi koy ñaan tamit lépp lu mu mën di def muy waxtaan ak éleveurs yi. surtout ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo am ay sénégalais lañ nekk fii nii tey boo gisee tey maliens yi tey ñu ngi fi ñëw en dugal fi seen i xar te après xaalis bi dañ koy yóbbu beneen dëkk kon tey bu ñu jàppale woon tey ñun jeunes éleveurs yi nekk fii nii di ay amaana tay duñu ñu fenen feneen xar waaw lool daal moom laa koy ñaan mooy sama Daniel Kaddu di gërëm nag sama gaay yi nga xamante ni ñoom laa nekkoon fii ñoom naan faal Seyna ali ñoom ak sama gaay yi waa Fakhalaan gi yëpp di gërëm ñëpp nag di siyaar waa Grand Médine yëpp nag ah ak waa commune de Patte Grand Médine yëpp di leen bëgg bu baax waay jërëjëf loolu moo nekkoon suñu waxtaan fii ci daral bi nga xamante ne mooy daral stade Léopold Sédar Senghor dégg nañ li nga xamante ni moom la wax si seen jafe-jafe yi nga xamante ni seen nekkin fii ak problème mu ndox ju demee noonu kon nag ñi ngi woo autorité yi ci mel ni ministère de l' autorité locale bi nga xamante ne mooy monsieur le maire de la commune Banna Diop ñu ñëw gestu ñi nga xamante ne ñooy ay doomu commune ay doomu Grand Médine nekk fii si stade bi di jaay xar pour ñu ñëw yombalal leen ko bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen émission sur la Patte d'Oie TV le leader de la télécommunale jërë ngeen jëf. waaw di leen remercier nag yéen waa Patte d'Oie TV wax dëgg liggéey rafet na lool gars yi muy àndal yëpp wax dëgg yàlla ñun moom dañ leen di suivre si YouTube beeg fépp di leen topp ndax liggéey bu rafet tey jii nii seetlu nañ du luy kese heure bu ñu amee loo xamante ni war nañ ko jàllale muy message moom da ciy taxaw te ñu ko waxee si seen télé bii rek ñëpp dañu ciy jot kon ñu ngi leen di ñaanal yokkute ca kaw ca kanam rek. jërë ngeen jëf jaajëf.